xam ñëpp a jaaxle parce que euh, xamuloo fan moo euh, fan ngay jëm euh, ñi ngi interdire yenn réunion yi fële sax même dans le commité boo xoolee benn moment dañoo bugg a def réunion yi par visioconférence joxe woon nañu outils yi et tout ça mais difficulté la yoo xam ne dafay taxaw ci kaw nit ñi mais soo gisee aussi sorti boobu am kuréel yi dafa am na ñuy doxe soo nekkee ci biir mu nekk ne décret moo ñu fa teg am ay mission am aussi ay euh, obligation boo xam ne ñu rendre compte au président de la république mais aussi du exclure ñu rendre compte li nga xam ne moom mooy population yi démarche yi nag mun na ute ce sont des problèmes yoo xam ne dañ ko poser à l'intérieur euh, du comité et nit ñi ñu ngi euh, def des démarches pour pouvoir régler ces ces ces difficultés là. Alors suñu la mooy yéen ci comité bi mais da ngeen am seen liberté. puisque parti politique bu nekk moom moo nekk ci biir lan la ñu mën a jàpp ci Mansour Faye ci facture yooyu nga xam ne ñeel na ceeb bi ak dawlin bi ak transport bi nga xam ne dangeen wax ne nanguwu ko fësal expliquer ñu pour ñu man comprendre. waaw euh, gis nga affaire facture yi ak lii. dañ koy def sax de manière générale mu laal képp koo xam ne ministre nga wala ministère boo xam ne danga laal ci euh, mille milliards yooyu. Mhm. obligation la pour yow nga leeral. ce n'est peut-être que président de la république def comité de pilotage boo xam ne dañu jël membre opposition jël membre non aligné jël euh, employeurs yi leurs représentants jël toutes les forces vives de la de, de la nation ñu boole leen pour que ñu contrôler loolu donc ñoom ñoo am tey woon sax pour daw vers ñun présenter euh, kayit yi lépp leer ñu waxtaan ci ba nga xam ne ñun dinañ mun a taxaw tey nekk sax ne ñoo war a défendre c'est pas c'est pas le cas pour tout le monde c'est pas le cas. pour tout le monde ngeen di wax rek Mansour Faye génnewul facture yi lan moo lan moo am ci ci mbir moomu. bon parce que gis nañu aussi mu def euh, conférence de presse mm, présenter li mu li mu li mu li mu bilan bilan wam yëpp bilan boobu ñun am nañ ci droit. tamit pour xam lan moo ci nekk ak kayit yi pour que ñu mun a valider li mu wax. ndax dafa am date butoir maanaam date boo xamante ne daf ko war a joxe bu ko joxewul ngeen génn euh, jéebaane ko comme ni ngeen def. wala am na loolu waxu nga date butoir sax mais waroon am étape par étape. dafa waroon a rendre compte au comité on s'est rencontré nañu ko nag fële ak euh, staff bi yëpp c'était au mois de de mai. euh, juste après la Korité 26 ou 28 mai rencontré nañ leen wax nañ leen li ñu wax lii Mansour euh, peut-être euh, suñu xarit ma Massamba wax bi ñu toogee ci ci bureau ba moom mu toog fa wax nañ ko li ñëwuñu fii comité bi pour que ñu def tableau de nu seva euh, rétroprojecteur wax seeni wax joxe seeni chiffres ñun ñu lemaat suñu bagage dem ñibbi c'était pas administration la ay kayit la foofu wax nañu li nga wax nii ngeen wax ko ba pare fii la dugg génn fële kayit la yu ñuy jox booy ñibbi nga yóbbaale ko boo demee nga mun a wax parce que li gën a graaw ci Sénégal bi fii di ñëw nga wax six millions mhm. ki dégg wi dix millions mhm. bind loolu ñëwaat ci presse bi wax dix millions mu indi fii benn coow mhm. ci biir loolu moo tax ñun ñu jël suñu précaution pour wax ne kat na kayit yi leer nga xam ne yaa bind ñun ñoo téye bu ñu demee aussi sur le terrain parce que lii lii lii tax loolu war a mun a am kayit yi mooy soo ma ne par exemple région de Thiès trente mille ménages la par exemple lañ fa jël en charge dix ñoo dem ci tel dëkk vingt ñoo dem ci tel dëkk vingt ñoo dem ci beneen dëkk su ma eggee foofu ma gis préfet ma ne ko yéen seen bon de réception yi anañu bu ma joxee tout de suite damay mun a comparer liñ ma wax fii ak moom la mu wax xam lan la loolu mooy suivi bi mais su fekkente ne joxuñ <laughs> nga dem fële aussi laajte yónni wuñ la et loolu c'est niveau yu bëri la loolu nag te ñun ci suñu bopp bu ñu demee ba def loolu dafa am loo xam ne ci biir rapport ba ñu jox euh, ki ñu euh, yónni woon la ñu koy jébbal am na loo xam ne aussi dañ koy rendre compte ci pôle ba nga bokk parce que ñun ay mandat la ñu yor amuñu nag pouvoir comme lu ñuy wax nii wala droit tëb nii peut-être wax Massamba a pris la liberté de faire cela en assumant également sa responsa ses responsabilités parce que ni mu ko présenté euh, loolu la mais teewul mhm. pôle bi saisir nañ ko pour que mu prononcé wu ci loolu et en temps opportun je crois que la position officielle euh, du pôle dinañ ko euh, jot. lan moo nekk réaction François Ndiaye ba ngeen ko waxee seen préoccupation yooyu soxal lu jëm ci wàllu facture ci wàllu. non moom li ma wax nii moom moo ñu moom moo ko njëkk a euh, euh, euh, décliné ci premier discours am contrôle sur place et sur pièce. ministère bu ñu dem. Mhm. lii ma wax nii wax na leen ko. ku indi nag gis nañu ku indiwul tam gis nañu. xanaa kay lan mooy réaction bi pour que ñu forcer leen ñu jox ñu kayit boobu loolu mooy. li nga xam ne moom la ñuy na leen nii seen préoccupation. eggee na ko ministre Mansour Faye parce que tey problème bi mooy encore une fois li ñëpp comprendre mooy ñu dem ba benn membre génn fa di ko wax ci biti alors que am na comité boo xamante ne nii Sénégal dañ leen mayoon confiance. non ñu ko ko biñu ko ko euh, biñ koy wax le ministre di rek moom moo njëkk a wax loolu ñun aussi ñu entonné euh, euh, wax fiñ ci toll nii aussi bu doon ne jot nañu kayit yooyu wax lii kii man. peut-être génnuma ci presse dem di ko di ko wax beneen canal la utiliser pour que ñu régler euh, problème boobu mais je encore une fois il s'est donné la liberté en assumant toutes ses responsabilités pour wax ko ci ci euh, presse bi. ñu ñëwaat euh, ci Cheikh Abdou Ahad gis nañu ne cas communautaire yi mi ngi gën di yokk léeg-léeg sax booy xool ci rapport bu ministère de la santé di andi mooy ëpp léeg-léeg cas contact yi alors ci contexte bu nga xamante ni également nit ñi seen xel mi ngi delluwaat ci chef religieux yi ci woowaat leen ñu ci xeex bi loolu itam ndax xel mën na cee dal ci balaa. balaa yàgg ñoom euh, ñu euh, woo njaboot gi yëpp war a teg nag benn beneen plan stratégie pour xeex dëggantaan mbas mi. Euh, li wér mooy chef religieux yi moom du ñu muus a abandonné population yi parce que seenu njaboot lañu donc fu ñu toll fu ne ñoom lañ ca war a wax ak lañ ca war a def dinañu ko dinañu ko def dëgg la cas communautaire yi c'est inquiétant parce que bari na léegi jéggi na jéggi na sax dayoo tey maa ngi gis benn médecin naan ça veut dire que ne maladie mi ngi suñu Ah, ça veut dire vraiment euh, am na euh, jëgg na dayoo léegi mais kilifa diine yi moom taxaw bañ ca war a taxaw danañ ko ca danañ ko def parce que wax naa la Cheikh Moul Mountakha bu taxawee sol masque sëñ Babacar Sy sol masque loolu foog naa sax soxlaatu nit ki soxlaatu sax même ñoom ñuy wax exemple boobu foog naa mënuñu am exemple boo xam ne moom na euh, rassemblement yi nit ñi di bañ nu ñuy dundee problème bi surtout ñun la ñun sénégalais ñu am problème aussi quelque part ah da ngay xool dangay ngay da ngay da ngay dem ci dëj yi euh, euh, da ngay dem ci enterrement yi da ngay dem ci nangam ak nangam donc ñun ñun suñu wàllu bopp ñun ñoo war a xoolaat suñu comportement de manière général boo gisee ñu baree baree bari man ci laa bokkoon au début ñu doon tiit naa nañu moytu parce que cas yi su bare hôpitaux yi dana fees kenn dut mën a dem nañu moytu parce que ñun ni ñuy dundee bu fi jàngoro ji lawee musiba lay nekk ñun situation bi lañ doon euh, lañ doon éviter mais li soxna si wax aussi bi ngi départ am na ne gëmuñ jàngoro ji ku mel noonu loo ci man ah koo xam day def dënni ne la jàngoro ji amul mënu ma ci dara nga wax a wax a wax a wax ba sonn mu ne ah man kat góob ma ko mënu ci dara mais mais mais mel noonu c'est cas désespéré donc li ci des rek moo di ne rek euh, ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy xeex mbas mi di ci wax waxtu wu nekk ñu ñu bañ a découragé ñu bañ a tàyyi xam ne aussi ñoom loolu seen responsabilité la parce que ni ku fekkee da nga ko da nga ko jabatee euh, doo ko topp doo ko topp da ngay xool la nga jàpp ne mooy la gën ci moom nga koy xëcc di ko jëmee foofa te quand même yi mën naa ne am na am na solo ci nit ñi ni nga xamante ne bii noonu lañ ko noonu lañ comprendre mbas mi ni nga xam noonu la demee beneen bi beneen bi ki dolli mu di nag léegi daan yi nga xam ne ñu ngi koy teg ci ku solul masque loolu si mooy leneen ne moom mooy ñëw quand même complété euh, que loolu si mënul ñàkk d'accord yaa ngi wax mbirum ni ñu gis ko foofu ca ca ca ca diwaanu que ne jusqu'à présent am na ay nit yu wax ni feebar bi amul yéen guide religieux yi bu weesoo euh, sëñ Mountakha euh, ban taxawaay ngeen ci am ba nga xamante ne ni par exemple ci réponse communautaire boobu ñuy wax nga xam ne day sensibilisation bi day dem egg ba ci kuréelu daayira yi est-ce que guide religieux tamit taxawee nañ foofu. loolu ñi koy weddi doon rek diwaan Touba loolu Sénégal gépp la. Mhm. Euh, parce que quand loolu aussi mën nañ ko wax xëy na sax fi taw gi toll ci Dakar di wax yenn yi day mel ne da ngay da ngay bàkk wala lenn. mais bu ñu waxee ne au début Touba moo nekkoon euh, disons cluster principal bi. tey jii mën naa la wax ne tey fi may waxee yow nii tamit 29 nag mën naa ne jeex na fa ñaati yoon ngay déglu à la rajo dégg ñu wax cas communautaire cent et quelques cas communautaire doo ko dégg benn Touba et ça c'est quand même depuis un mois donc loolu loolu dafa am lu ko sabab parce que nit ñi nañu déggal sëriñ bi ñi nga xam ne ñoo ne ci ginnaaw sëriñ bi mu yeneen kilifa diine yi muy imam yi muy président daayira yi li sëriñ bi def ñoom si dañ ko jël kenn ku nekk di ko def à son propre niveau loolu mooy ñu may résultat ba nga xam ne euh, euh, moom la fa am tey lu mel noonu bu ñu ko amoon Dakar jàngoro ji fi mu agsi fii foog naa du agsi bon malheureusement amuñu ko fii kon nag li am solo nag moo di ne kilifa yooyu di wax aussi seen kàddu yooyu mu mu mu en tout cas mu gën a xumb ñu bañ ko yemale ci koñ yi bañ ko yemale ci ci réunion daayira yi bañ ko yemale ci biir dëkk bi mais ñu génne ko ci télévision bi génne ko ci rajo yi ba Sénégal gépp mën cee mën cee jot ndax man nag jekk et puis loolu laa gëmoon mooy kilifa diine yi li nga xam ne mën nañ ko ci nit ñi ci jàngoro ju mel nii kenn mënu ko ci parce que ñoom dal sa et ça c'est important parce que nit ko si xelam bu bu dalut même bu ko jàngoro gi dalee sax du mën a résister day dafay dafay dafay dafay faible bu ngi dalee si xel ba noppi nag delloo la ci sunu borom xamal leen aussi ne la ji comme ni ko sëriñ waxee jàngoro ji moo ko yebal muy dox mission ñi war a yóbbu ala kulli àllin dana leen yóbbu parce que da ngay gis ñoo xam ne dal na leen nga dégg ñu ne kat ñoom dañoo confiné woon façon moytu bu ne moytu nañ ko mais teewul jàngoro ji yóbbu na leen donc kon aussi loolu xel loolu xam ne yàlla mooy dogal loolu aussi nañ ko bàyyi xel xam ne du sunu njàmbaar moo tax ñu taxaw fii di wax waaye dogal suñu borom moo ñu musal ba ñu taxaw fii di wax. sa c'est important aussi loolu aussi li nga xamal nit ñi. ñu ngi ñu ngi jëm ci ay événements religieux màggal Tuubaa ñu ngi koy wàcc ak euh, gàmmu Tiwaawan ñu bëri jàpp ne tey jii nii ak contexte mbas mi ñu ngi xalaat mbirum dàq euh, yooyu la événement religieux yow lan nga ci lan nga ci xalaat.